salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal gars yi ñun nag du ñu ay seetkat duñu ay sëriñ ñu dara ñun ab taalibe rek lañ ñu ngi leen di siyaare waaye ay sénégalais pire lañ bëgg réew mi gars yi fu waay mën a ne bu ko sàgganee saraxeel ndox mu bari ak soow mu bari ak suuk ak ak kii mburu mu bari da jënd mburu mu bari nga saraxe ko ak soow mu bari ak ndox mu bari incha allahu rabbi bu ñu ko defee bu neexee yàlla ak yonent bi Sénégal naam ndam bu neexee yàlla incha allahu rabbi fu na saraxe ndox mu bari soow mu bari ak mburu mu bari incha allahu rabbi